century la ñuy woowee sa yaay yow ba nga bëggee Omar ba léegi delloo woo avance ba léegi yaa ngi téye nii kaar yow boo ñëwee tale yaa ngi taxaw. nga xam ne doom la ci yow jàmbaar la ci yow frère la ci yow te ni ku nekk xam ne ku nekk la sa njaboot. yow léegi say mbokk di bari alal rafet ci ko. loolu yàlla ko defee wax. xew na nit ña ñëw di bari alal rafet ci ko. Ah. fa yow kenn ku si. saako yi li man génn nga de. jàmbaari Serigne Bassirou Ba ci génn na. jàmbaari sëriñ Basiiru Baara ci kenn moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Layla illallah ya Rasulullah لا Bamba Faal sooy dégg dem naari bee ñibbi naa àjjana Basiru Aminata Lo ñibbi naa ñibbi naa àjjana Sëriñ Basiru Aminata Lo ñibbi naa suuf si jooy ndox mi jooy Sëriñ ak ñibbi naa su si jooy kon ndox mi jooy Basiru Aminata Lo ñibbi naa su ma doonoon sun ku ko jaamuwul perte nga jaamu leen sun borom ku ko jaamuwul jaamuwul perte loo baax a baax baax baax loo bon bon bon bon da loo bari le bari le leen da ngay dee fa barkeb laa ilaaha illallah la góor yàlla yi di rawee illallah illallah illallah illallah illallah laa ilaha illallah yàlla rek a mën laa ilaha illallah yàlla rek a sañ laa ilaha illallah mooy dundal te mooy rey laa ilaha illallah muhammad rasulillah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammad rasulillah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammad rasulillah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammad rasulillah sallallahu عليه وسلم No. rasul ba jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf waaye bala ñoo jublu ci tudd mi. monsieur def nii def trois pièces. daa am lu may sàkk mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew muy journaliste yi. waaw yow déedéet yow nee nga tey lii. kenn ku nekk xam na seen diggante ak Balla Gaye jël. kenn ku nekk xam na seen diggante ak Omar Sakho. lépp lu mu xew nii yéen a cee gën yéen a cee jiit yéen a cee mujj. waaye dañuy waajal tudd mi may sàkk ci yéen. ngeen ñëw taxawee nii. jàkkaarloo Balla Gaye jàkkaarloo tudd mi ndax am na ñoo xamante ne rek la ñuy def ku mel ne Wassina woo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nañu bàyyi loolu xel ñëw leen taxawee ñi war ne kenn ku nekk jël li bëgg a jël dalu yàq dara loolu lay tax jéem a na ñëpp ñëw Alioune Badara ñoo ñëw ñu si mooy riir. lamb ji combat. lamb ji combat mooy riir. wax naa léegi suba ni lu am ñu ne yàlla ba mu des ñett. sëñ daam yàllaa ñu bind moo nuy rey moo nuy teral Alioune Badara ñett yi muy bëgg a wax bu mu dal wax yàlla barora yaa ko def ngeen bàyyi xel yéen ñëpp waay toll ñoo ngi waajal tudd mi dañoo bëgg ñëpp egg suuf mani na ñëpp egg suuf ngir jëmi Seydina Muhammad sa ngeen moytu ma nañu bàyyi xel damay egg suuf ñun ñëpp ñu àndandoo tubaab kër Limaamu Laay Kunta Njaasaan ak Maodo mi borom jaawale Seex al ñu ngi ci bi nañu ànd jëm imaam waaye nii ngeen def rafet nekk leen benn place féete benn boor kenn ku nekk jël li mu war a jël ki ko waral mooy ji ndax bés de tuuti jëmm ji mën naa am lu jëmm ji mën naa am bis bu toll nii jëmm ji mën naa am mbooloo mu toll nii bàyyam bii li ko génne du ay caaxaan ndax aw yaramam neexul waaye bu sa bàyyi taawloo ko mel nii ngeen baal ñu wàññi coow ngeen baal ñu wàññi coow li ngeen jëmi Seydina Muhammad maa ngi sàkku ki nga xam ni moo nekk ca gàtt ba na waaj tey déglu ndigal ki nekk ci gàtt bi nay waaj te déglu ndigal te nu xam ni ñun ñëpp lii nu fi dajale la borom Touba Xaadimu rek moo fi nekk jar naa sol dàll weñ ngir fekke ko di daw ba say tànk tànk ndax it nit wàcc na ca ëtt bëgg yàlla sunu borom may ko mel nii te am ko am na ko te defulul yàlla lu tax suñu borom jox ko nit ñàkk na ko te deful yàlla lu tax mu ñàkk ko kon buur yàlla mooy dogal tund mii nag jar naa bàyyi xel ndax dañoo nekk ci weer wu mag nekk ci weer wu nekk ci weeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit nag boo juree doom tudde rasulullahi bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin waaye mbokk yi alhamdulillahi rabbil aalamiin nee na ñoo ngi sant yàlla Mamadou Sakho mi toog nee na ñoo ngi koy jox wàccuwaayam di ko wàcc ci wàccuwaayam nee na ak baay nee na baay bi nag yaay tànn tur wi waaye tur wi nag moomoo ko nee na kanu ko tudde moom moom aw turam waa mbokk yi boo ko tuddee sans ba Paul ba Gomis ba Pereira nag nee na ndax kooku sa la mu dem ba mag nekk mu kallaf nee na mu kallaf mu kallafum lislaam toog ci mbooloom lislaam ñu ne ko Paul wala ñu ne ko Jean eh loolu dina ko tranché de dina fàtte ay bëtam taxas ay noppam nee na kon nanu seetaat tur yi neen na ñuy wat karaw gi nag bu nu amee gàtt nag ñu daal koy rendi nee na loola nag mooy sunna si mooy fi tax a teew ñun ñépp na ñu ñaan ci yàlla na ki nga xam ni moom la ñuy jox tur yàlla na ko yàlla may wërsëg ginnaaw ba mu ko te may ko wér may ko wërsëg may ko xam-xam nee na teg ko ci lislaam nee na yàlla na nga fekk njëriñam ñun ñëpp nag nee na ay waajuram seenu xéewal yàlla na ko yàlla yokku nee na xéewal ko yare nag ak xéewal gun ko yore nag nee yàlla mën na loola yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp nee kon ñoo ñaan ci kenn ku nekk na jàng faatiha ak alal nabi boo man jàng lixlaas jàng fallaqi ak naas nee nañu ñaanal ko gan yàlla dundal may ko fan wu gudd wu ànd wér may ko wërsëg may ko xam-xam yar ko ci lislaam bismillah kenn ku nekk jàng lixlaas ak fallaxi ak naasi ñaane ko gan bu màgg bu tedd yàlla na ko sunu borom aar te guddal aw fanam yàlla defal ko wërsëg bu ëllëgee wërsëg wi nag yàlla bu mu ump kenn rawat na ñun géwél ñi ko fekk tey su boobaa yàlla ñu may xaalis li muy yóotu li muy bëgg lépp kenn wax leen amiin amiin yaa amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin eh, dañoo xeeb ci bis bi rek. kon nag donc seen liggéey parce que maanaam am naa ko seen liggéey rafet rek waaye dina leen def. mbooloo mi imaam nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. seen maam yi soxna na gis nga jox ma. ndànk rek ndànk rek kóolaa bi ndànk rek. yow loo am borom tuuma. ndànk rek. man ñu may tuut ak déglu. amiin ki nekk ci gàtt bi nuy déglu ndigal na waaj tey déglu amiin ya rabbal alamin amiin kalian mengunyang amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Allah لا إله إلا الله. ki nekk ci gàtt bi bisimilah ki nekk ci gàtt bi bisimilah ki nekk ci gàtt bi jur doom tudde borom Touba Xaadimu Rasuul juróom doom tudde doomi borom Touba Serigne Saliou Mbacke borom jàppandal ak borom njurug borom borom nga xëy nga borom nga tudd borom yaa yaakaar Serigne Bassirou Bara Sall ma di bay bal ba tàkk na ñu ne tuddee nañ ko Serigne Saliou borom ñu ñu jàpp dal xabar ndox ak fa tuddee nañ ko Serigne Saliou Cheikh Tidiane ala ma de ñu topp Serigne Saliou bay ànd nga ak borom gotum borom xel kon jaaga te jëlee ñu dem xel kon ñu topp bu Serigne Saliou am nga ni dem demoo xel kon waay